waaw ñu de dañu doon liggéey ba mu yàgg ñu jékki-jékki ay xale daal di ñëw ñu gis ay xale taxaw tiim ko am ku nekk génn ci place bi ñëw daan ne ko daan ne lu ngeen def foofu ñu ne kii daal dafay tëdd ñu ne ko ñu daal xale am na ko nekkoon ci biir place bi ku ñu léegi moo génn ñëw tiim ko yëkkati loxo mu yëkkati bàyyi mu wàcc mu ne kii daa ne wàcc na après ci lañ woote sapor ñu ne woo leen police ay mbokkam waa mujj nañ ñoom ndax bi ñu lambee poste dañ cee fekk téléphone ñaam ñi gis appel bi ci mujj ñu woo ko mu xam ay mbokkam ci lañ leen ko waxee ñu ñëw fi après bi ñëwee ci la ñu woo sappoor bi sappoor ñëwee police ñëwee fi daal di ko yóbbu ñun xamuñ ko de xam na di jënd si après bi fi mbokk koo nemmee ko daal ko woon ñi fi njëkk de nee nañ daan jaay la ñu wax kénkaayar la loolu la ñu wax de maa ah, neen dara jëlu ko mbokk yi neen dara dalu ko mbokk yi mu fi ñëwoon neen dara dalu ko ci commune bi la ñëwoon affaire bi ni mu demee mooy dañoo génn suñ place taxaw fii ma fekk ñaari gone yu taxaw fii si wetu ci wetu place bi ñu fekk leen ñu taxaw mu a ah yéen lu ngeen def foofu ñu ne paa bi dafa mel ne moo fi daanu léegi ah paa bi da ngeen fi daanu ñu léegi la fi kii noonu mu ne leen jug leen foofu dugg si place bi am benn kii boo fekk na ko sawaay kaay mu ñëw mu ne ko xoolal paa bi mu yëkkati loxo bi kii yëkkati tànk bi mu ne ko ah sawaay paa bi noppalu ne mu ne waaw ah, paa bi noppalu ma mu ne léegi tey ñëwoo sàppoor ci lañ kiyee noonu décidé ñëwoo sàppoor sàppoor ñëw affaire bi noonu la ko yee daal. non non ñun moom ku jotuñoo xam loolu ba xam dara dal na ko dal en tout cas ñëw nañ fekk moom mu tëdd fii nii ñu gis ñaari boy yu fi nekk ñaari boy yooyu nag lañ gis ne leen lu ngeen def foofu ñu ne paa bi kii ma xool gis paa bi ne ko dem leen dem dugg leen fii si lañ woowee sapeur ñun ñëw ko. xam na mais nag ko laal ndax comme suñ du moom ko laal mais ñu xamoon nañ ne moom faatu na si lañ woowee sapeur sapeur ñëw bi moom it xaar police ba police ñëw police ñëw ñu jël ko corps bi yóbbu noonu la demee tëddin bi tëddin bi moom gis nañ mu tëdd jël loxo bi kii ko noonu xam naa ne kii amoo na problème da xam di tax mu jugee ci ne am nañu ne fii la ci commune bi la jugee am nañu wax loolu mais man gisuma fu mu jugee ci commune bi ak ne kii yëgoon na lu métti ni mu tëddee rek lu loxo bi teg ko si la njëkkatee loxo bi wër kii tànk bi kii ko fëgg ko xam ne kii noppal na ko noppal moom boo ñëwee da nga xam ne kii noppal na may lus la soloon am mooy liste de salon daal ak benn mbaxana kii yooyu noonu mooy awse yi mag la mag la mag la war naa dem ay soixante cinq ans ay waaw mag la